aywa li si yéenekaay dañu koy doore ak l'observateur si taxaw seetlu bi mu xëyee si mbir mu ñu bari seetlu si réew mi di politisation des affaires judiciaires maanaam mbir mu yoon nga war koo lijjant ak yoon ñu rax si politique ba mu lëj ubbil yéenekaay si coowal Adji Sarr Ousmane Sonko mi ngi ñuy wax rek dafa bees waaye am na yu ko jiituwul li ko dale si Mamadou Dia Karim wadd jaar si Khalifa Sall Idrissa Seck Abdoulaye Wade ku si nekk rek am lante nga ak yoon te ku si nekk rek ci ñoom la yoon doon toppi bu si politique jiituwul moo sa mujj l'observateur nag teg kaa bi si kaa ak docteur Ousmane Sène ak Ibrahima Ibrahima Bakhoum Diop nekk ab journaliste formateur doon itam kuy gëstu ak càmbar politique réew mi moom nag di xam ne rek kenn yoon jekku la nga jël yëf di ko politiquer loolee foo ko gis rek jëfi politicien la gis na itam ni njiiti réew yu bari yu fi musa jaar amul kenn koo xamante ni ni bàyyi na justice mu indépendant beneen taxaw seetlu si Walf Quotidien di mbirum Aminata Touré ak problème yu bari mboolem yéen kay ko di ñu wax ni moom Mimi Monseigneur Benjamin Diagne moom la journal bi di bés bi la jour xëye dalal tey mi ngi wax seg si tolluwaay réew mi moom Monseigneur Benjamin Diagne nee na la xewoon si assemblée nationale loolee lu jara moytu la ndax jékkul jaaduwut kàddu yu fitna ak tëkku waate yi nu gis si réew mi moo tax la mandat samp ab laaj laaj bi mooy kan moo am intérêt ci réew mi tàkk wala sax jaxasoo mbaa mu am salfaañoo journal mi ngi wéy di laaj am ay nit yi diine yoo xamante ni di àddu si coowul politique ak situation politique réewum Sénégal fi mu toll ñoom nag kilifa ci réew mi jàmm si xët-xët yi am si langue politique yi Mortala Gueye di nit dof nekk si loxo yoon les ko xëy ak ay naataangoom rapport yi si réewum Sénégal def ab conférence de presse doon sàkku ñu libéré ko nag yooyu la rapport nag ñu mën si ràññee mel ni fu mu laata kilifa Simon Ngaka Blindé moom Simon nag daan fa yëkkati ay kàddu di xam rek ni njiitu réew Macky Sall kàddu yom yëkkati woon jamonoy maître Ablaye Wade waxoon ba ni Macky Sall yëkkati moo ko gënoon a garaaw ndax moom mi la nit daf yëggut ba naan dina dem jëlee Macky Sall foofee mu nekk ñu wax si leneen ak yenekaay bi di enquête lim xëyee nag mooy gestion ak exploitation bu train express régional bi nag baraada de fer ba dox ci diggante réewum senegal ak France coow loolu di wéy ba tey beneen bu yéenekaay di Sud du Quotidien moom rek di xam ne ni lii saxaar gi moom nag yàgg naa ànd ak coow ni saxaar gi dafa aawlu ndax bëri na coow lu ko topp ginnaaw bi ñu ko daloo ba tey coow lu dem leneen topp sa ñu changé sujet dem sa l'observateur wax si leneen ubbil yéenekaay ak l'enquête bu mu xëyee jëmale ko ci ñi nga xamante mooy maamani maanaam sëriñu tariya ak seen i jaloore li ñuy def si ñi nga xam ne gëm nañu kàddu yi leen di wax journal bi samp laaj am ñenn ñum dajal si askanu ñoo xamante ne si jot nañoo laalante ak maamani kenn di si yëkkati ay kàddu di xam ne rek moom ginnaaw ba mu dajee ak benn maaman mu waxoon ko rek ni ko da ngay wut ñetti xaj yuy dund mbaam ak ginaan nga boole leen suul si genn kàmbu jërë ngeen jëf ñu yendoo jàmm